laka daaru salaami rabbi wa Sidi Mokhtar Mbacké ñu gën ko xam ci maam Cheikh Anta Mbacké wala borom gaawaan way juróom bu góor di Serigne Momar Anta Sali way juróom bu jigéen di Soxna Anta Ndiaye cheikh sidi moktar mbàkke borom gaawaan mu ngi jàng alxuraan ci wetu ñi nga xam ne ñu siiwoon lañu ci yoonu murit ku ci mel ni sëriñ daam abdourahman lo ak sëriñ mor gannaaw bi mu noppee njàngam ci la dem ci wetu magam di cheikh ahmadou bamba xaadim rasul mi ko tàggatoon ba tax mu doonoon ki mu doon boroom gaawaan ku bëggoon sëriñ tuuba doon topp ay ndigalam ba tax lu mu ko santaan noonu la ko daan defee boroom gaawaan doonoon liggéeykat bu mag daan yëngu itam ci wàllu njënd ak njaay waaye xolam bu yaatu taxoon na daan dimbali néew ji doole yi maam Cheikh Anta boroom gaawaan bokkoon na ca ña demoon ca Gabon fekk ji sëriñ Touba ca na ci tukki boobee ba mu ñibbisee ci la wax taalibe yi ni leen Serigne Touba mi ngi dund ba tey loolu wute woon lool ak kàddu yi nga xam ne tubaab yi moom lañ daan biral fukki fan ak benn ci weeru novembre atum 1902 gannaaw Serigne Touba ba mu jugee ca Gabon moom borom gaawaan moo demoon ca port daal koy teeru gannaaw bi Serigne Touba Mbacké defee ca Gabon juróom ñetti at looloo waral tey ji ci Daaru Salaam at bu nekk ñuy màggal bés bi nga xam ni mooy wane ñibbisi Cheikh Ahmadou Bamba ci kanamu taalibe yi 1922 maam Cheikh Anta Mbacké bokkoon na ci délégation bi ñu yabaloon ca Tiwaawan ngir ñu yóbbu seen njaal gannaaw bi Seydi El Hadji Malick liggéey gi mu Gimubakhon, Mom Borom Gawan, xol bu yaatu ba te mën a maye lool moo taxoon ñu daan ko woowee borom dërëm ak ngërëm 1928 gannaaw at bi Sëriñ Tuuba wàccee liggéey moom boroom gaawaan ca la dem ca màkkatal mukaram ngir nag ziyaare yonante bu tedd bi wéetu ci benn yoon mu àndoon ak Sëriñ Fàllu Mbàkke Sëriñ Mbàkke Buso Sëriñ Mulaay Buso Sëriñ Tàkko Mbay ak ñetti taalibe di Sëriñ du Njaay Sëriñ Ibrahima Dia ak Sëriñ Mayoro Fall am dërëm ak ngërëm moom nag dundam gépp mi ngi ko defee ca Daaru Salaam Cilmaxa ca Kayoor ak Gaawaan fukki fan ci weeru mai atum 1941 moom boroom Gaawaan ci la wàcc liggéey boo demee fa ñu ko denc ca daaru salaam taalibe yi saa su ñu ngay ñëw di ko ziar liñuy ñuy ñaan kay mooy yàll na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem amen